tey ma bàkk la kañ yow boroom xol bu yaatu xol tey ma way la bégal la boroom bu bëri déglul te xeral lu nax salaamaaleykum mbokk yi faral di ànd ak seen mbokk Cissé Leral dal leen ay jàmm ci seen formation photoshop ci suñu leçon tey incha allah ñu fas yéene continuer ak selection tool tey incha allah ñu fas yéene dugg ci selection tool bi gën a intéressant ci wala boog yi gën intéressant ci photoshop donc boo ñëwoon ci photoshop tey par exemple ñu am photo bi ñu bëgg a sélectionner Ndaw mi donc moo nekk nii ñu bëgg koo sélectionner donc mën nañoo ñëw fii am na ñetti façon sélection mais nañu tàmbalee bii nii ñuy wax quick selection tool donc bu ñëwee ci quick selection tool Euh, ok après ñu daal di commencer sélectionner donc da xëcc rek moom li muy li muy sélectionner moom buy sélectionner day xool couleur yi méngoo maanaam tey boo xëccee rek da ngay jël sa souris bi euh, teg sa da jël sa baaraam teg ko sa côté càmmoñ ci souris bi daal di bës rek daal di xëcc ko bës daal di xëccaale souris bi donc mu daal lay topp donc comme ça. donc nga daal di tànn moom buy jël day jël couleur yi nga xamante ni moo niroo couleur yi nga xam ni moo méngoo donc bu paree léegi yow yaay jéem a zoom vite photo bi par exemple boo ko zoomee nga daal di xool ko tey nga daal di wàññi bii mooy wàññi wala boog alt bu la neexee nga bës alt bu la neexee nga daal di ñëw rek daal di euh, cliquer fii ci moyen bi après mu daal di nga daal di commencer wàññi ok bu fekkee da nga juum ci li nga wàññi mën nga ñëwaat fii nga yokkaat ko par exemple comme ça Euh, c'est très facile donc bi euh, quick selection tool donc mën nga ko sélectionner comme ça ok euh, jël sa temps xëcc ko zoom ko sélectionner ko bam bam perfect comme ni nga pas ni la photo bi photo bi nu comme ça D'accord boo sélectionné ba pare donc euh, mën nga def par exemple contrôle 0 pour delluwaat donc boo sélectionné ba pare mën nga def contrôle J pour daal koy def ci beneen layer mais tey dañuy utiliser lu ñuy wax select and mask select and mask moo lay permettre nga daal di effacer li nekk ci ginnaaw da nga koy def genre mask da ngay effacer nekk ci ginnaaw photo bi daal fi des donc euh, bii dinañ ci ñëwaat après incha select and mask nu ñuy nu ñu koy nu ñu koy utiliser ak nu muy fonctionner incha allah donc moo lay permettre nga mën a préfecter côté yi nga xamante ne koy da koy masquer comme ça donc après nga daal di koy jël daal koy yóbbu fi nga xamante ne par exemple mu nga ko bëgg yóbbu jël photo bi yóbbu ko fi nga ko bëgg a yóbbu donc mën nga def euh, move mën nga dem move tool rek boo demee move tool daal di xëcc photo bi comme ça ok donc euh, shift entrée d'accord photo baa ngi noonu donc mu ngi noonu comme ça mën nga defar euh, mën nga jël sa photo yóbbu ko fu la neex avec sélection tool boobu noonu mën nga sélecté li nga bëgg a sélecté yóbbu lan fa nga ko bëgg a ko bëgg a yóbbu oui c'est comme ça ok ñu daal di delluwaat ci beneen sélection tool bi eh, te muy bi nga xamante ni moom la ñuy wax ñu eh, dem ci deuxième sélection tool bi dinañ ko gis léegi léegi incha allah bu ñu amoon par eh, exemple photo bi d' accord bu ñu amoon photo bi ñu bëgg ko ñu bëgg ko def sélection nañu dagg ko tey donc bii nii moo lay permettre nga daal di mën li nga xamante ni moom photo bi bii nii mooy crop tool ok donc nga daal di dagg li nga par exemple noir noir bi nga dagg ko bu la neexee donc ñu ñëw ci selection tool bi nu muy fonctionner donc boo ñëwee fii ci selection tool bi te muy lan magic woo tool donc magic woo tool ni muy fonctionner mooy ay couleur lay tànn moom tey par exemple boo ñëwoon fii euh, nga xool couleur ban moo gën a nduroo ci couleur yi nañ jël noir parce que kii li mu sol lépp Mouhamed Cissé <laughs> li mu sol lépp dafa dafa dafa noir sac bi dafa noir en même temps donc mën nga ñëw fii nga daal def lan sélection tool bi euh, fe euh, bul fàtte comme par yaa ngi gis bu ñu sélectionné affaire bi nu muy delluwaatee nii donc bul faté daal di tan bi par exemple bi moy bu yokk bi bul faté ko tan après nga daal di def sélection bi comme ça donc nga daal di tolérance bu la nexé donc tolérance fi mo lay permettre nga daal di tànn nga xol manam bo défé tolérance tay bu ma tané couleur bu noir bi sans dépend ci tolérance bi mom lool lay dépendre di tànn couleur bu xawa bu jege noir wala couleur bu sës ci noir comme ça donc yaa gis donc lu muy gën a tuuti li muy tànn di gën a gën a tuuti lu muy gën bëri li muy tànn di gën a bëri comme sax donc boo defee tamit euh, contiguous bi boo defee bi bii nii boo ko sélecté yaa ngi gis donc boo sélecté fii nii dina la permettre aussi tamit boo tànn noir fii fii bu amoon noir automatiquement dina ko tànn donc euh, comme que bii dafa bëri ay couleur comme sax donc euh, dina indiwaat beneen photo wan leen sélection tool bii nu muy fonctionner moom ci ban boor la gën a mënee ci ci ci def sélection wam quoi donc mën nañ koo continuer ak euh, sélection tool bi nga xamante ni moom lañ utiliser woon sànq pour daal di defaraat ko yi ba mu gën a ba mu gën a jàkk ba mu gën a normal d'accord comme ça wàññi fi tuuti contrôle Z ok comme ni ko waxee woon nga di ñëwaat par exemple select and mask and feather contrast bi ni ñu la ko waxee woon tànk dinañ ci ñëwaat incha allah gën ko leeral parce que dina la ci sa masque nice gën a diko a dikk comme ni ko bëggee donc nañ jël benn photo foo xamante ne par exemple foofu lañ ko bëgg a yóbbu ñu fi lañ ko bëgg a yóbbu par exemple bu ñëwee fii daal di jël photo bi di dem ci move tool xëcc ko daal di koy yóbbu fi nga xamante ni foofu lañ ko bëgg a teg par exemple daal def control T daal di di defar daal koy adjust daal di koy def ba mu placé wu fi nga xamante ni foofu la war a placé wu yëpp photo baa nekk noonu donc par exemple photo bi mën nga cee def couleur yëpp dinañ ci ñëwaat après donc euh, tey suñu suñu suñu leeral mu ngi aju ci wàllu li nga xamante ni moom la ñuy tuddee selection tool moo tax dañuy.

Euh, couleur yi wala boog ay couleur yu bëri bëri couleur yu bëri wuñ ci wala boog benn couleur moo ci nekk wala couleur yu nduroo comme genre photo bi quoi yaa ngi compo donc boo ñëwee fii par exemple boo ñëwee def tool bi magic euh, word selection tool donc boo cliquer ci photo bi da ngay gis ni moom automatiquement sélectionné na la euh, photo bi ba pare moom sélectionné na couleur bi yëpp ba toog daal di sélectionné lan lu rond yi bu la neexee nga daal di koy def inverse moom ins bi li la selecté background bi la selecté mën nga koo inverse donc boo ñëwee puis euh, boo ñëwee par exemple euh, select nga daal koy inverse wala nga def shift control I donc da gis ne daal moom déjà selectel na la ko ba pare boo defee masque moom euh, moom pare pare na ci liggéeyam bu yàgg donc kon boobu mooy li nga xamante ne moom la ñuy tuddee magic word tool donc moom ci li muy sukkandiku mooy ci ay couleur lay sukkandiku. Euh, ñu ñëw ci dernière euh, selection tool bi nga xamante ni moom la ñuy expliquer tey te muy li ñuy wax euh, object object selection tool nañ tànn par exemple photo bi d'accord bu ñu tànnee photo bi object selection tool moom da ngay dessiner rek par exemple object selection tool moo nekk nii moo nekk nii object selection tool donc da ngay ñëw boo ñëwee nga daal xool man kii laa bëgg a sélecté da ngay ñëw ci kawam. ma xool moom fu mu tàmbalee fu mu jeexee ma daal fay def ma daal koy dessiné carré carré bi daal koy gis moom ni muy tourné ni moom moo lay defal sélection bi ba mu nekk ni ba mu ba mu wër nit ki carrément nekk place bi nga xamante ni la war nekk tey par exemple li nga gis ci biir par exemple ci biir loxo yi fii da ngay gis ni dan euh, dafa dafa da da koo sélecté te bokku ci donc da nga koy wàññi da ngay ñëw fii nga daal dessiné waat carré bi rek nga ne ko lii bokku ci donc moom mooy moom mooy natt couleur yi couleur yi méngoog place boobu yëpp mu daal koy daal koy dar dar ko ci jëlee quoi comme ça yaa ngi gis donc boo defee nii rek moom mooy jël couleur yëpp daal ko fay dindi ok boo paree mën nga koo jël daal koy yóbbu fi nga xamante ni moom nga ko bëgg tamit par exemple euh, genre photo bi ok ok def control t encore per exemple daal di def shift booy defaa contrôle T daal di xool fi nga xamante ni moom nga ko bëgg teg daal di def enter donc c'est comme ça jeex na tàkk. ni ñu ñëwaat ci aussi tamit beneen exemple ak object selection tool pour mu gën a leer donc bu ñu amoon par exemple photo xale yi euh, bu ñu amoon photo xale yi ñu daal di ñëw def ko fii par exemple ñu indi ko tijju ko ci Photoshop donc ñu utiliser object selection tool moo nekk nii donc object selection tool daal di dessiner carré bi ci ñaari xale yi moom nga gis ni automatiquement une minute mu daal lay sélectionné yëpp donc du mat sax ay secondes donc tànk yi par exemple dikkul nga yokk ko ci da ngay defaat da ngay ñëw fii ci plus bi rek wala nga daal def shift donc boo defee shift daal di cliquer tànk yi loxo yi fu mu nekk nii euh, cliquer comme sa ok bu dee da ngay wàññi par exemple carré carré bi bokku ci da nga ko bëgg a wàññi da ngay ñëw cliquer ci kaw carré carré boobu donc moom moo koy sélectionné boppam comme ça donc object selection tool. tool bu bees la nak 2020 la génn bokul won ci tool yi nga xamante mo moo ak Photoshop bi ñëwoon avant mom ni ki 2000 2000 euh, nu mu 2019 wala yoy non, wala yu ko quoi donc tool bu bees la année bi la génn donc mo nek ni li ñuy wax object selection tool muy sélectionner bo xamante ni euh, d'accord par exemple tay euh, am nañ photo bi ñu bëgg ko yóbbu fan nañ xol fuñ ko mën a yóbbu ok nañu dañ ko bëgg indi fi ok ñu daal di ñëw def sélection bi comme ça ok nga daal def control t def control t bul fàtte basaale shift ndax eh, moo lay permettre dimension yi mën a ñëw comme ni mu war a comme ça like this you get it donc loolu mooy object selection tool tey loolu lañ leen indiloon ak seen euh, leçon Photoshop xam naa dinañ ñëwaat ak yeneen exemple ci leeral euh, selection tool yi nan nga ko gën a mën a utiliser ba mu gën a am efficacité nan nga ko mën a utiliser comme ni nga ko bëggee donc dinañ ci ñëw ak yeneen exemple incha allah di leen jox di daje suñu lesson yi di ñëw wala boog suñu lesson yi di ñëw oui <laughs> incha allah nekk leen si jàmm.